ulamaaw yi ñi fi teeg teewal tariqa yépp ak boroom xam-xam yi ci Sénégal ak ci bitim réew ak ñi jógee fu sori walla fu jege ci yeneen état yi jege yu Europe yi walla yu Asie yi walla Afrique ak ñi dëkk ci réew mi ak ñi jiite daayira yi ak association religieuse et culturelle ñi jóge ci yeneen béréb yi ci góor ñeeg jigéen ñeeg ndaw yi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di gërëm ci woy si bi ngeen woot woy si wooteeb seen mel ni mbokk ngeen bokk yàlla muy ku bëgg a xam-xam ku bëgg a diine ak kilifay diine yeeg ulamaaw yëpp rawatina sayidina alayhi salaatu wassalaam muy suñu doom yàlla may ak baax tabarakallah muy ku farlu ci tasaare xam-xam ak leeral yoonu dëgg muy Abdullahi Saïd Gueye mii